parce que li dañoo seetlu li fi xew weesuwul lenn lu dul ay nit tànn ne réew mi bu ñu waree jàkkaarloog askan wi ñoom ñooy tànn kan kan ñoo fay dem ñu wëlbatiku sepp yi ay ñoo xam ne ñi amoon nañ éene jariñ Sénégal ci élection yi indi seen programme sénégalais yi àtte waaye ñoom ñu àttal seen bopp ñu bëgg a yëkkati ay kàddu ñi nga xamante ni ñoom la ñu wax les leaders alliés du candidat Ousmane Sonko ne ñu ngi wax ñooñu ñëpp ne leen xam nañ ne li am jaaduwut xam nañ li am ñun nanguwuñ ko rafetluwuñ ko donc dañuy bokk di masawu ñëpp mais di wax ñëpp ne leen man day damay dem marché mënuñoo bokk oto waaye bis bu ñu ma xañee mën a dem mën a dem ñun ñëpp nañu bokk ànd xam nañ fi ñu bëgg a jëm soppi réew mi dong lañ bëgg ñu ñëpp nañu ànd taxase wet taxañe wet yëkkatee wet dóor yàlla may ñu may may ñu la yéene te na nga xam ne ñu indi lii weesuwul daaf weesuwul DGE weesuwul Sénat weesuwul conseil constitutionnel te conseil constitutionnel ak waa conseil euh, ak waa ak waa caisse dépôt de consignation bërki démb conseil constitutionnel li mu wax daf ci am benn ay kàddu yu yu leer nañ yu mu yëkkati conseil constitutionnel dafa wax ni Ousmane Sonko de lii tax këyitam manqué amul lenn loo xam ne coobare boppam la xam nañ ñu ko def mais ñu ne amul kenn koo xam ne kii moom la ñuy yëkkati ne tuuma gi kii moo ko def nii lañ koy jubbantee nan la état di tooñu nit ñu ne loolu kenn mënu ko réparer nan la état di lore nit lor ay nit ci seen volonté ba ñu ne noppi amul kenn koo xam ne ki moo koy ngar rajo moo koy yenn pour ñu soutenir une responsabilité ça c'est un déni de justice lii mooy attekat bu weddi boppam ndax jël na la mu war a mu toog ca di doxal nit ay bëgg-bëggi boppam lii la ñu wax ni bu ñu jógul ci lii fii ñu jëm du rafet ndax bu ñu wóoloo ñii def lii te ñu nañu suba ñoom ñoo war a saytu élection yi ñu nañu suba ñoom ñoo war a proclamer suba sax kuñ fi fal ci seen kanam ngay waate waaye ñooñu bu ñu leen doyee ñun doy ñu donc dañoo wax ni fichier électoral bi nañ ko yëkkati teg ko ci loxo ñi nga xam ne bi ñoo nekk ci jeu ci jeu bi ci jongante bi ñu xam xoolal seen bopp saytul seen bopp benn ñaareel bi ñu wax ne ñii fi ne te wane ne ñoom ñu doon bañ mooy Ousmane Sonko nekk candidat ñu dàq leen seppi seen loxo si ne indil ñu ñoo xam ne ñi danañ ñu doy ba bu ñu nee diw gañe na kenn du histoire kenn du xool naan ah ñii day seen jëf doy na set na rafet na am nañ ci ñoom yaakaar mais ñii fi nekk nii amuñu ci benn ñoom yaakaar amuñu ci ñoom benn respect ndax wan nañu ñoom respecté wuñu le peuple sénégalais. moo tax gannaaw loolu dañuy wax le peuple sénégalais ne leen lépp nag ñu ngi ko teg ci responsabilité nit ku nekk la ngay jëf na nga wëlbatiku nangoo la nga cay góobee nga gar ko. gar boobu nag responsabilité boobu la ñuy wax ni le peuple na jóg assumé ko mooy lan. nañ dem jëli carte yi damay voté li xew ci dëkk bi neexuma Ousmane Sonko dina ba Bassirou Diomaye Faye dina gagné candidat wu Lacoste dina gagné on va changer te dox bi nga war a dox doxuloo ko wax bi nga war a wax waxuloo ko ñi nga war a seeti seeti woo leen bu ngoonu élection jotee bu kenn jooy moo tax ñu ne dem leen ngeen jëli carte yi nañ jëli carte yi nañu dem vote ji mais man xeeb naa sama vote man Birame Souleye xeeb naa suma vote moo tax dinaa voté waaye dinaa indi ay nit ñu voté danaa voté mais danaa indi ay nit ñu voté ba noppi dinañu wëlbati ko saytul suñu bopp suñu vote ndax ñii fi ne doy ñu ci et nag saytul suñu bopp suñu vote mooy danañ bañ le vol le hold up technique mille un million parrain ñoo xam ne ay citoyens lañu am seen carte électeur ñu ne nekkuñ ci fichier bi maanaam ñooñu dañ leen luxus dañoo réer fan lañ leen jëmee un million de électeurs ñi ngi taxawal ci dëkk bi xamuñu fu ñuy vote jee loolu mooy le le technique bi ñu nar a indi beneen c'est le vote géographique gis nañu ni ñuy yokkee élection nit yi ci yenn zone yi nga xam ni da ngay gis commune boo xam ne dañu ne dix mille habitants moo fa am ñu ne ñaata électeurs moo fa nekk ñu ne vingt cinq mille électeurs am na fi ku ngeen xàmmewul ci dëkk bii bu taxee sa koñ ne day vote man du ma ni xàccul dóor kenn waaye fii doo ndax dëkkoo fi am nañ sañ-sañ wax ko dëgg loolu dëgg nañ taxaw ndax ñoo mën a surveiller moo tax ñuy woo coalition yëpp parti politique yëpp plateforme yëpp tous les citoyens ne leen ñëw leen ñu taxaw lii rendez-vous la bu ñuy joxe lajj nañu ay rendez-vous yu baree baree bari mais bii day bii day waruñu ko warate ndax li ci laxasu li ci ngar daajewu li ci nekk ci biir dafa bari te benn rek benn rek waroon na cee doy bu ñu ne am nañ ndam Ousmane Sonko fekk suñu bu ne am nañ ndam Bassirou Diomaye fekk suñu bu ne am nañ ndam prisonniers yi ci kaso bi yëpp fekk suñu bu ne am nañ ndam Habib si Bassirou Diomaye ak keneen ak keneen keneen ñëw taxaw jàkkaarloog Ousmane Sonko loolu rek mbégte googu rek war na justifier tous les sacrifices ndax Ousmane Sonko lépp lu mu waroon a def pour le peuple lépp lu mu waroon wax lépp lu mu waroon a muñ lépp lu mu waroon a indi ci xam-xam ak xel andi na ko teg na ko desalatuñu dara ñun ñoo ci des nañu suñu nañu nañu woddu dañu sol suñuy tubay nañ jël suñuy kaaga nañ jël suñuy euh, euh, euh, li ñu war a jëfe taxaw xaar ndax jot na ba noppi